mu nekk loo xam ne yombul woon ci xale parce que man bi ma neen kaso sama 19 ans boobu muy soog a mat ma géré ko and ci ak suma ngor ak suma ful ak sama jom garde yu bari nak nekkon suma xarit parce que gis bëgg yalla mo koy def ci jam nit dalay gis ni rek bëggal la bopam mais li ci gënon metti sam papa daawul rajo visite non non chaque vendredi doon ñëw chaque mardi doon ñëw contact bu amee fajar moo fay jiitu chaque visite contact bu dugalul 3000 dina dugal 5000 pendant 3 ans si koo xam ne néew di doole la nga yaakaar si benn doom ju góor ñu jël ko yóbbu ko kasu ci loo xam ne deful fekkeewul yëgul tinul mais il est que man maa waroon defal sam pap mais sam pap moo ma doon defal guddeeg bëccëg suba ngoon. bi ñu collecté dossier bi cour d'assises lañ ko yóbbuwoon biñ ñu woyé spécial nañu seen dossier yóbbu nañ ko cour d'assises amna fi ak 3 4 mois wala 6 mois di